Mokhtar. waaw xam nga dañu waxoon sànq ci eh, xaatimu Souleymane donte jàngale nañ ko fu bëri. Mm-hmm. waaye ñu leeralaat ko pour mu mu gën a mu gën a leer. Mm-hmm. xaatimu Souleymane eh, lii rek mooy tur yi mooy tur yi ko tënk. fard jabbaar sakkuur. may lañu tableau may lañu yeneen télé yi sunu wet. sawaab. saxiir xabiir ak shaki barakallah mhm. juróom-ñaari eh, tur yi la ci li ñuy dugg itam mhm. wane nañ ko fu bari moo nekk ni lii mooy lan quatre eh, quatre xaatimu Souleymane cinq ah. xaatimu Souleymane bi ngay këyit gii de xanaa dañ koy xooj après ñun ñëpp sangu ci <laughs> na ko kat deux trois quatre cinq six sept huit boo xoolee un deux trois quatre cinq six sept un deux trois quatre cinq six sept un gis na fard bi mm-hmm. moom moom bi mooy biddiw bi ngay gis mm. jabbaar moom moom bii sakkuur moom moom bii maanaam du du nu la neex nga koy dugalee rek déedéet du nu la neex koy dugalee mhm. sawaab skay xabiir ak sakki xaatim bi am na ci loo xam ne lépp kenn mënu ko wane ci ci ci ci ci ci émission waaye lii mooy junj bi dafay wane ne xaatim la boo xam ne xaatim bu bu bu am am doole la nag mhm. surtout ñi nga xam ne dañu amee wàllu rab benn muy xale boo xam ne dafay gis dara xam nga rab dafa mën a yàq parce que nit ki su juddoo lu ci bëri euh, rab bi ci biiru yaayam la koy njëkk commencé yàqale pour yàq ëmb bi su jógee foofu bu fekkee rëcc na ci loolu euh, mu nekk xale boo xam ne mën na yeex a dox wala mu yeex a wax su rëccee foofu mu naqaril am xelam ba am njàngam mën naa xaw a gàllankooru su rëccee foofu mu yàqal ko ci wàllu liggéey mu jàng bu pare du am liggéey wala mu toll ci am jëkkër du ko mën a am wala mu tollu ci am soxna du mën a am soxna su rëccee foofu du ko bàyyi mukk nit ki ba am na age yoo xam ne su ci nit tollee rab du ko yàqal euh, lu mel ne su amee soixante-dix ans euh, su boobaa ñaar rek moo mën a am mooy nit ki Euh, rabu cosaanam bi bi mu nekkal mhm. abandonné ko dem yeneen rab yi ñëw am ci moom accès mhm. mu am lu mel ne genre euh, wéradi xel wala yooyu mhm. parce que di nga gis nit ñoo xam ne âge bi ñuy am di naax du normal loolu lu ci bëri itam rab daf koy daf koy daf daf koy def rab daf koy def euh, loolu noonu mu amee xam nga moom fukki kii la juróom-ñaari duggin la dafay topp semaine bi bis bu nekk dafa am nu muy duggee moo tax nit soo xamee bis bi ko feebar bi daal rek ñaar da nga xam bis bi nga xam ne bu noonu la amee nag yoon yoo xam ne pour xawaatim moo ko tax a jóglu mooy comme jaaro bu ñuy takk euh, pour ubbeeku wala kaaraange wala wàllu cat wala yu mel noonu. xaalis nag wàllu am xaalis. am na ci yoon woo xam ne pour wàllu alal la euh, comme nii moom xaatimu Souleymane am na xaatim bu ñuy wax itam xaatimu Xaaruuna. Uh-huh. boobu itam pour pour pour alal moo ko moo ko moo ko tax a jóg. waaye xaatimu Souleymane lu ci bëri suy ànd ak alal dafay àndak bayre te am na nit ñoo xam ne dañu bëgg am wërsëg te duñu am te bayre du leen duñu bëgg ay nit di leen yeewa kay fanal daal mm-hmm, moo tax ñooñu xaatimu xaaruuna bi moo leen di gënal que xaatimu Suleymaan bi mm-hmm. kon lii daal mooy euh, xaatim bi ñuy wax xaatimu Suleymaan léegi nag ñu ñëw ci lan mooy